dictature sénateur ba Ben Cardin ci xëtu yéenekaay ba ma nga naan Macky Sall dafa war a deltu ginnaaw ci dogal bi mu jël dàq élection présidentielle bi ndax dogal la boo xam ni wóorut mën naa dugal réew mi ci lu ne ca waxtu woo wala nu Dakar Presse di yëgal ne fitna gi wàccagut gannaaw élection présidentielle bi njiitu réew mi Macky Sall jël dogalu dàq yéenekaay bi ne coalition Diomaye président dañoo fas yéene amal seenub campagne démb nag ba nu ko nanu leen loxo yéenekaay bi ne ba ñu leen tegee loxo nag sûreté urbaine la ñu leen yóbbu ay waxtu ginnaaw jàpp garde à vue ay jàppante yu metti nag yéenekaay bi ne amoon na ca Parcelles Pikine ak Kër Mbaye Awa Marie Coll moom tekki ndombal tànkam la def ministre d'état bi nekkoon it présidente yéenekaay bi ne raxasu na ci mbiri Macky Sall ba set wone ñàkk àndam ci dogal bi mu jël di dàq élection yi tribune nañu du moom dong ndax bu weesoo Zahra Iyane Thiam it taxaw na jàkkaarloog Macky Sall wane ñàkk àndam ci yëf yi dialogue lu ñu war a li mu war a def mooy tëgg yi dàq élection googa mu nar nag moom Macky Sall révélation ma ni ko naan dana ca wéet ndax parti gauche yépp du mooyu bi ne ñoom ñépp ko woon ginnaaw moom Macky dëggal ko ne parti gauche yi wàcc nañu Macky Sall ba ca ña ca bokkoonte ne woon ca nguur ga Macky Sall lay jëfandikoo PDS ba des ci nguur gi nag le réveil moom la ñuy tojal benn par benn yéenekaay bi ne corruption ba ñuy ji ñaar ñu bokk ca conseil constitutionnel lañ sookee lépp waaye li sooke dëgg dogalub Macky Sall bi dàq élection yi yéenekaay bi ne journaliste bi di Yves am na ci lu mu ca xam gannaaw ba mu waxtaanee ak Sall ci téléphone ca la ko Macky Sall xamalee ne li muy ragal ci réew mi mooy mu tàbbi ci loxol islamiste sonk ma ñépp jàpp ne moom moom yooyu la kàddu ca yor yor ba ma ngay wax ci projet de mandat à vie bi Macky Sall bëgg maanaam toog ci nguur gi li des ci ngirug dundam ñee war a jël say responsabilité ci guddi yu lëndëm yi Sénégal toll Seydi Gassama ca ca booba dañoo xamul njeextal bi mën a am yéenekaay jiital ca koom-koom gi mu dóor kurpeñ gu bon productivité itam yéenekaay bi ne dafay wàññeeku lool ci réew mi boole ci yokk li mën a indi fitna la am ba nuppi nag mooy àdduna bi yëpp fi mu ne mooy dal ci kaw Sénégal grève générale bi yenn syndicat yi woote it yéene kaay a yaatu yéene kaay bi ne kàddoo ngi bawoo fu ne ñuy ñaawlu lii Macky Sall bëgg a def ci réew mi ay farandoom ca boobaleb yéene kaay yi ña ngay di layal luwaa booba gannaaw wooteb luwaa booba nag source a ma nga ñuy wax le conseil constitutionnel mën a def ngir soppi yëf yi gannaaw ay requête yuy candidat yóbbu élection yi recours yooyu ak dabu ya le quotidien ña bari ca kanam conseil constitutionnel opposant bu ne ngay yóbbu waa gauche bi ne ci nguur gi farak Macky Sall nag yéene kaay ne wàcc da ca kawam manifestation it ña yokk député Guy Marius Sagna Abbas Fall journal bi diñu yëgal ne tegoon nañ leen loxo lataa ñu leen di bàyyi média internationaux it yéene kaay ne kenn bawu ci Macky Sall ba ci directeur de publication bu jeune l'Afrique amul lu mu yàqut Macky Sall ci milép mbir Karim Wade mi nu yàq lu ne it ndax déclaration sur l'honneur bi nu ne daf caa wax lu du dëgg l'observateur a nga ñuy wax li mën a dal ca kawam ay topp yu nu ko mën a def bokk na ci kaso la fanaan journal bi ne bàyyib négandiku la am bu ànd ak contrôle judiciaire universitaire ya booba jamono ca l'info ña ngay dal ñoom ñépp ci kaw Macky Sall bu Sénégal delloo ginnaaw Sénégal Sénégal itam te gàkkal deram ca regard ña ak moom Macky Sall ñooy dal ci kawam muy Zahra Iyane Thiam Abdoulatif Coulibaly Youssou Ndour ak Awa Marie Coll Seck yéene bi ne Mamadou Ibra Kane dal na ci kaw Macky Sall ñaaw dogal bii mu jël ak ni muy ngooyee ci nguur gi Mamadou Ibra Kane moo ma jege lool Amadou Ba it ma ngay xamle ni pexe yi yépp xeex Amadou Ba moo ko waral waral bés bi le jour di laaj ndax diggante Amadou Ba ak Macky Sall duyoo laam duyal dañoo àndam dañuy xeex journal bi booba jamono ngay nasi pexe ngir deetuloo nguur gi ci dogal bi mu jël muy salfaañe ak ne éditorial Komo yéenekaay bi ne dina am ci alxamis ji bu nu ca noppe ñoom ñëpp guddik altine buntu Walfadjri lanuy fanaan toogaanu ko yéenekaay bi ne talaata nag buñ yeewoo bu kenn xaar gi si yéenekaay ndax journée sans presse lan ca woote laas ne presse ba laata ngay organiser wu ngir fexe lii ñu tekki seen kaw ñu fajal ko seen bopp ndax jàpp ne pesum kanam la te boroom a ko war a fajal boppam booba jamono libération di ñu yëgal ne ñaari tuut tànk yu jëlee woon ca pouponnière Ndella Madior Diouf ba yóbbu leen hôpital di leen faj mujjee nañu ñàkk seen bakkan hôpitalu Thiès yéene bi ne foofa lañu faatoo yóbbu ci juróom-ñett li mu gone ya faatu ca kër yërmande bu Ndella Madior Diouf mu Aliou Cissé mbaa sénégalais yi amunu dëgg ci kawam stade moo samp wi laaj gannaaw taxaw seetlu gu mu def ci joueur yaak nanu leen di jëfandikoo waaye it remplacement ya Cissé ñaare mu dinu jural defet yéene kaay bay joxoñ coppite yi Aliou Cissé def te ñu bari jàpp ne lu nu am ciy defet foofa la jóge ñun foofa la nuy taxaw te ñaanal leen kenn dal ak jàmm dig daje ëllëg incha allah